Macky Sall dafa bëgg am projet revenir en en en ah. deux mille ah dàqu ma ko de. loo ko de. deux mille vingt lan nga wax. deux mille vingt neuf. ah sori na itam. non non je veux dire la présidentielle. ah de bala jàng man de yaakaar naa bu mooy nekk tête de liste su benn <laughs> bu élection législative amee. Ah, ah, yaakaar naa ko de amu ci lu yow li ngay wax nii c'est intéressant de. ah yaakaar naa ko de. Euh, élection législative prochaine. ah nekk tête de bu mu surprendre kenn. ah déet bu mu bett kenn ànd ak waa PDS. waaw bu mu bett kenn de. and ak waa PDS. xam nga Macky Sall dafa am logique politique. ànd ak libéraux yeneen yëpp soo waat defee benn rek dañuy bëgg a def fukk. ànd ak libéraux yëpp. ah mën naa nekk pas yëpp xëy na. mais parce que fan yii gis naa libéraux yi ñoom jubóo nañu. dama ne xam nga Ablaye Wade Macky Sall moom daa am ligne de bu leer nañ bu Ablaye defee benn mu def fukk ginnaaw Ablaye newoon na fi tête de liste. donc yow ces ambitions là qu'on lui prête c'est pas infondé. pour 2029. waaw ah, déedéet man li ma jàpp nag mooy Macky moom mos sa bëgg dem et je crois que bokk na ci xëy na benn bokk yaakaar lu leen mere mooy defuñu dara pour mu toog. wax na ko ci sec dernier secrétariat exécutif. Ah, ah parce que man jàpp naa ne nii nii gars yi doon xataraayoon ne Macky day dem du bu bu mu am troisième mandat ni ma doon xataraayoon ne warut am troisième mandat man jàpp naa ne waa benn nag bu ñu doon xataraayoon noonu.

pour bañ ñu àtte ko diggante ma ak gis looloo fi indi violence mais troisième mandat indi fi benn violence. maintenant maintenant maintenant maintenant euh, c' est vrai que moom hmm, wax dëgg yàlla toog na ne le 3 juillet mu ne nekkatul candidat waaye nag waa waa ñi mu àndaloon aussi defuñu dara pour mu toog ah xam naa xëy na mu nekkoon xaaral ma xëpp ci. <laughs> mais daal li ma jàpp mooy. Hmm. bu élection législative amee. Macky Sall nekk tête de liste nekk tête de liste coalition boobu di am. Hmm. jort naa ko euh, bi ñu des nag élection présidentielle 2029. Ah, du ma bett mu laajaat. parce que xam nga la rédaction même du du du du de la disposition de l' article 27 de la constitution. fi nga xam ne le président de la République nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mm-hmm. su fekkoon ne Macky Sall daa bëgg doon dellu si da ciy def nul ne peut exercer plus de deux mandats yem ca. kon su boobaa mm-hmm. avis lay doon waaye bu ñu ci defee consécutif bu consécutif bi réglé na ko ba noppi. donc il peut revenir pour chercher un projet. mën naa am un mandat de décence. dégg naa nag ñu goneen yi nga xam ne du leen doon recevoir këram Mermoz dégg naa dañoo bëgg a modifier constitution bi wax ne ku am deux mandat dootoo mën a nekk candidat ah, dégg naa ñu ko wax de xam nga la am déet nag. ñoom moom dañ def référendum moom. ah dégg naa maa ngi gis sax euh, Alioune Tine d'ailleurs muy wax ci yu xaw a jege yooyu mais en gros bon pour man c'est pas c'est pas